الحمد لله الذي bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi mooy chaîne bi nga xam ne mooy leen jàngal seen diine jël leen ci mbirum àdduna ci ay bis googu ñu génn nga xam ne ca xew-xew ba doon xew foofee ca Bakel ci la premier ministre itam di njiital parti Pastef woote woon ca jam ñaajo Dakar Arena moom it oustaz mobilisation bu bëri mbooloo te dañoo waxoon ne sax ñu fay ñëw ku ne na nga indaale nangam nooy jàngate loolu waaw man di dégg naa ci jenn waay nee na xanaa xanaa xanaa eh, premier ministre Sonko xanaa dafa yor benn application boo xam ne bii télécharge ay boy <laughs> waaye xam nga sunu dañ mm-hmm. bàyyi waaw su muy da ko jox ay jumtukaay mm-hmm. ndeysaan ku bëgg nit ñu sopp la day fexe ba nit ñu sopp la mm-hmm. loolu kenn mënu ci daal léegi kay loolu mooy ni ñu ni ñuy exploiter loolu lu am solo loolu kàddu googu kilifa goo xam ne gi am nañu ko ba bu ne Aïcha ñun ñëpp nu ne Aïcha léegi Aïcha Aïcha yooyu fu koy ko fu koy fuñ koy euh, jëmale fuñ koy orienté loolu moom ci yëpp yëf nekk waaye wax dëgg yàlla ni ma ko seetaane euh, mbooloo ma foo ko takk weesu na ko te dégg naa la woon ci biti mu ëpp li woon ci biir gis naa jenn waaye mu ne vraiment barki démb géejuwaay la jóge sëñ Bàkke nee def doon wut deux mille francs nee na waaye ndekete géejuwaay yëpp amatul mille francs léegi ndax boo yee ko jël <laughs> boo yee jël mille francs yóbbu ko waaye daal ak lu ci mën a xew rek vraiment Mm-hmm. jotaay bu am mm-hmm. solo te itam discours yam fa doon def tomb mm-hmm. sàngam lii lañ ca jublu deuxième tomb lii lañ ci jublu troisième lii lañ ci jublu àdduna ngi xaar de waaye tomb yooyu am na solo lool te itam joxoon yu baax a baax la yàlla yàlla na ñun ñëpp rek muy doxale noonu te itam kuy weddi nag lu mel noonu tam nga def ko objectivement wane na lii nanga ma tax d'accord ma ci lii lii nanga ma tax da ma ci lii su ko defee nu dem bàyyi xasante beeg dóorante beeg wokkante beeg sànnante xeer yi suñu bàq macha allah loolu am na solo oustaz ci njàngat mu am solo moomu ak euh, conseil yi nga ci joxe itam nga xam ne dañuy yóbbu ci ñu am débat bu objectif boo xam ne dañuy wax ci li ñuy avancé te bañ wax ci jëmm yi loolu am na solo lool ci mitin bi amoon ca jam ñaajo dafa am point boo xam ne bëgg naa nga jàngatal ma ko mhm. mooy dañoo gis lu bees loo xam ne miinuñu ko woon a gis ci politique politicien moo daan woote joxe xaalis jox nit ñi ay bis jox nit ñi ay yére léeg sax jox nit ñi ay përjom def leen li seen poos tey nag mu mel ne dañoo gis changement boo xam ne ki woote nit ñi ci boppam ñoo ñëw kenn ku ne di jël alalam di ko jox loolu oustaz noo koy jàngatee ci politique ak yaakaar ji ci am. waaw su ndax laaj bu la am xam nga suñu borom li mu tëral mooy dañoo bëgg ne dañoo bëgg a so jóge ci lañ nekkoon nekk ci leneen. Hmm. liñ nekkoon mooy da ngay ci kees bi wutal ñëpp ay ay ay ay. ay ay garam bu bu dee bu dee jigéen ñi. Hmm. wutal ñu ay ay ay ay casque wutal leen ay jóokin wutal leen ay nangam mën a tuy jox leen paas dem ak su hmm. fekkee nag dañuy def meeting boo xam ne ku dugg da ngay paas. xam ne minimum da nga joxe mille waa loolu loolu li ko gis bëriwut. dëgg la fekk tubaab daa ma sa ñëw Sénégal suñ Mbàkke jamonoy Abdou Diouf. moo hmm. jëmut ñuy ñuy soppi suñu gouvernement ba fekk jamono jooju suñu ab laaj di laaj moom tam luñ yokkee jumaa jo ñu di ko jox di ko jox ba mu ne doy na léegi tubaab ba def ne waa yéen kii ban ministère ngeen ko jox ñu ne ko kii ab sëriñ la mu ne kon yéen amul ay yéen am ngeen problème mooy koo xam ne kii boo laajoo ñu jox la da ngaa war di laaj waaye koo xam ne kii boo laaj ñu jox la nag ministère bi nga xam ne moo yor wàllu finance kooku moom dalaa war di jege donc politicien boo xam ne bii danga naan kaay leen jox ma kenn du ne lu tax foo ko teg yoruma ko nangam nag waaye nit ki paasal boppam ba ca stade ba joxew mille franc am genn wàll milliard hmm. loolu am na joxoñ boo xam ne bi war nañu koo jàgg ñun ñëpp joxañ joxoñ boobu hmm. man de xam na léeg-léeg ma am am at di dajale million mu tëmu hmm. ndeysaan waaw léeg-léeg am am at di dajale cinquante million léegi su ma amoon xaatim goo xam mën naa taxaw dajale cent million kon yaa yaa kii moom léegi tey ngeen am ay oto incha allah. donc lu bees la nag ci politique bi yu bees yu baree bari mi ngi am yoo xam ne bu ñu ko seetloo daañu xam ne yaa na sotteeg jàmm te muurloo ko nag waaye kaay jox moom daawul am ci politique da nga daan wax ne kaay leen ma jox leen léegi nag li nga yor di leen ko jox nag ñoom ñoo ko moomoon ndekete li nga leen di laaj ñu la koy jox nag ndeke noo ko bokk ndekete. donc lu bees la ci. dafa mel ne problème mu la ci man fii comme mi ngi ñëw. lu politique bi maa ngi lay dégg na man lu bees la ci politique bi ak ak itam bu gënee yaatu gën a baax bu gënee bari itam du gën a baax du bi dara incha allah ndax ko kuñ daan laaj ngay joxe euh, wala boog nga daan joxe léegi ngay laaj ñu lay jox. am na solo lool seen baax. allo yaa oustaz waaw maa ngi lay dégg waaw baax na kon fii moo kii woon tuuti ci man am na solo lool ci tomb boobu ak ni nga ko jàngatee e, ci wàllu yaakaar ji nit ñi am ci moom ba nga xamante ne ni mën a jël alal ju baree bare di ko jox ki nga xam ne day laaj réew mi ci alhamdulillahi alladi alhamdulillahi alladi aghnani wa a'azzani bi tila yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da di bés fii nga xam ne moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali TV mooy seen bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna